benn chaque week-end mais des fois su ma laalee table bi rek dafa naan ci sama sëriñ man su ma mënoon table bi yóbbu ko ba ba Sénégal ni di commencé. ndeysaan. wallaahi. jërëjëf. waaw. maa ngi ne maa ngi ne woon dinaa jënd frotté non lumière bi na tourné bi waaw maa ngi ne woon dinaa jënd frotté parce que démb jinne boobu maa ngi ñëw rek mu ah mu kii ma rek mu ma engagé gis naa ko waaw gis naa ko ma ne woon dinaa jënd frotté macha allah nga ñëw nga ne nga yaa ngi gën a yaa ngi gën a yaa ngi may gën a chargé. ah kon dañu lay préparé pour demee kay. waaw waaw kon kenn <laughs> lay préparé. waaw ah, dégg nga. macha allah maa ngi fii ci kër gi. Hmm, macha allah ndeysaan àndoon ak jëwriñ Babacar Sonko. ndeysaan Cheikh Aliou moo nekk nii. Hmm, ndeysaan mooy dàmp noonu ci tànk yi. Ah, nga dox dafa bëri borom Suisse. nga dox dafa bëri sama sëriñ. Euh, jëwriñ Fama Sow mu ngi ci yoon bi. ndeysaan gis nga Traoré Adama Mouré ñoom ñaama soirée ñoom Madi Touré ndeysaan ñoom Alaaji Touré mm-hmm. macha allah ñoom Dikel Sow ñoom tonton Sow ndeysaan macha allah ñoom Alaaji Dramé mm-hmm. vraiment dem nañu bi xam naa ne suba incha allah suba la événement bi waaw macha allah moom dafa mel ni sax dafa xam mbir yi parce que yii dafay am solo. on parle de yii moom jërëjëf jërëjëf les biens de sang parce que. waaw. ndeysaan li ngay dox dafa bëri trop. waaw waaw ndeysaan. incha allah. Euh, jëriñ xam naa ne après dinañ def kii bi. waaw. tuuraay ak yooyu. waaw. ma ma raxas yi. waaw xool nga. ma raxas yi. waaw génne ko. tamit baax na fi toog fuur bi. cheminée cheminée. kay seen kër neex na tey tàng na démb kay naka jekk ma koy xool rek bëgg koo taal ñu ne marché wul man leen lii day marché de ñu ne ma marché wul man leen lii de waaye ah, ah? bu du loolu bu du loolu kër day sedd ça ne suffit pas. jëwriñ bi moom tey. maa ngi doon wax ñu jël ñu jël prise ñu jël prise de sac wala sac yi du doy de. macha allah yéen kay yéen a dàq sax chauffage chauffage mbatt moo gën chauffage wu kii. xam nga soo ko ubbee gis nga ni mu ko def soo ah, ko ubbee nii nag mu tasaareel ñu ko fépp. dañ ko jot. waaye boo tëjee day dem ci kaw. waaw day dem ci néeg yi. Ah, mooy ah, lay chauffé moo tax. waaw waaw léegi nag septembre ngay woo ramoneur bi ramoneur bi daal di koy nettoyé mooy tax éviter incendie yeeg yooyu. dëgg moo tax matt yi ñu teg ko. man ngay ba ma ko gisee laa xam ne day marché ñu ne ma doxul ay la. damoo neex ci kër. Mhm. incomparables. ñoom ñoom dañuy dem si am na ñoo xam ne ñu ngi dëkk si dëkk yi si dëkk ndaw yi. dañuy dem si àll bi di gor garab yi. waaw jël matay indi ko si seen kër yi. da dem dugal ko si seen gardin yi. waaw su sedd bi ñëwee rek ñu dem. waaw. waaw lii dafa am solo. waaw lii kër bëri am nañ ko. waaw lii dafa am solo. waaw bu dee courant bi sama courant bi tamit. waaw man sama kër moom si suuf laa jaarale ay ay ciwo ndox mi tout le temps. moom loolu mooy chauffé ma demee nii bi rek ndox bi day day day ñëw tàngal tànn si ciwo bi. maawula maawula waaye daal ngeen namanti ko moom de ndeysaan euh, koor gi koor gi ñëwagul sax waajal na ko. ah, ah mois. ndeysaan moom la muy benn kay. pour ñëw foofu ndeysaan ndeysaan dagg na dagg na billet pour ñëw. Ah, pour ñëw daaru laaj pour liggéey ci koor gi foofu. Ah, ndeysaan dagg na billet un mois. ndeysaan moom moom dagg na billet yónnee na ma ko avant avant événement bi. waaw ne ma sëriñ bi damay ñëw. waaw. soobee yàlla ndeysaan. liggéey la ba ma kontaan. yokk ba yokk rek macha allah waaw. yàlla liggéey yàlla moom waaw su ngeen raw seen i maas raw seen i morom. jërëjëf waaw macha allah. ndeysaan jërëjëf mu ne mu ne. Hmm. waaw. sax naa dox kii la dox bi. waaw waaw. macha allah baax na xam nga fii bu ma fi ñëwee ba tey defuma sport. moom laa doon wax sànq si oto bi rek. Babacar. alors booy def noonu. booy def noonu taalibu ya